njiitu réew mi Macky Sall jël ne du samp nëndam bokk si élection présidentielle atum 2024 matal na benn ponk si nga xam ne ni moom la waa F24 doon sàkku waaye nag mouvement bi ba tey amaguñu lu leen neex nee na dafa des ay mbir yoo xam ne bëgg nañu ñu indi si ay saafara. ba muy juddu dañoo toog waxtaan euh, teg benn charte boo xam ne ñeenti ponk la benn ponk bi mooy Macky Sall warul bokk parce que constitution may woo beneen. ponk bi mooy du moom mooy sélectionné candidat yi parce que gis nañ ne ci code électoral bi am na ay articles yoo xam ne ñoo tere ñeneen ñu bokk gis nañ également am na ñoo xam ne ay ay verdict commandité ay coup de justice moo ñu ne loolu lañ ko teggi parce que loolu taxul réew mu jëm kanam beneen point bi mooy liberté publique ak euh, prisonniers yi prisonniers yi dañoo bari trop tey ci kaso bi am na ñoo xam ne amuñ fa dara lu ñu fay def quatrième point mooy élection yi élection présidentielle gis nañ ne ba mu juróomi candidat la woon ñeent candidat yëpp dañu d'accord ne élection yi jaarul yoon donc il faut ñu waxtaan waxtaan bu sell bu gudd ñu xool naka la ñuy defee élection yoo xam ne dafa jaar yoon Sénégal yëpp bokk ci. moom gëm na ni Ousmane Sonko dafa war a bokk sa yooyu la jongante ni ki xalifa Sall ak Karim Wade. Euh, am na ñu bari ñoo xam ne topp nañ ko am na ñu bari xam ne bëgg nañ ko. te bu fekkee ne dañ koy teg loo xam ne du dëgg du yoon ñoom ni ñu ko gisee loolu du indi jàmm ci réew mi donc pour ñu am jàmm ci réew mi nañ def li nga xam ne moo ngi rafetlu mat gi nga xam ne moom la njiitu réew mi Macky Sall wane si discours am nee na daal lenn moo ko neexul si kàddu yooyu njiitu réew mi yëkkati mooy bi mu naan daañu topp teg daan yi war képp ko bëgg a jokk rek xajamal réewu senegal lu ni mel nag si gis-gisam dafay waroo ak woote jàmm bi muy woote.